asalaamaaleykum mbokk internet yi asalaamaaleykum les auditeurs de tuba Argentine TV ñi nga xam ne ñoo safoo Touba Argentine TV via Facebook via YouTube Touba Argentine TV moo leen dégteel une information de taille la venue du président de la République son excellence monsieur Macky Sall le 17 la war a ñëw au Brésil sur une invitation de son excellence monsieur Michel Timer ci loolu le 18 mu sàkku ne dafa bëgg a dajeek la communauté sénégalaise dégtal leen ñi nga xam ne mënuñoo dem Brésil teewee ji njate boobu daje boobu ñi nga xam ne nii seen tànk oyoful pour mën a teewe ji ndaje boobu ñu dëgtal leen suñu micro trottoir ñu wax seeni i wax seen i ñaxtu wax seeni jooy ñu mën ko nga xam ne la consul ou bien l' ambassadeur dina ko déglu mën koo bind ci référendum jëbal ko son excellence monsieur Macky Sall muy problème mu sénégalais yi problème mu passeport yi problème mu ñàkk a voté ci élection yi ak yeneen ak yeneen yoo xam ne sénégalais yi ñuy dégtal suñu micro trottoir dinañu ko leeral dinañu ko faram-fàcceel ñu mën ko dégtal ci Touba Argentine TV. jébbal ko euh, le consul jébbal ko la ambassadeur mu dëkk jébbal ko la président de la république son excellence monsieur Macky Sall. tey une sénégalaise la ñu am quoi mu ñu ko ñu koy ñu koy dégtal micro bi di ko laaj gis-gisam ci la venue du président de la république soxna si na nga def ak tur bi tur bi ak sant bi. waaw maa ngi tudd Koumba la waaw nekk fii Buenos Aires ñi ngi nuyu waa Sénégal yëpp di leen sant di leen gërëm di nuyu suñu parisida bi Macky sàll gis nañ sa yërmande ci askan wi léegi nag lii sunu njàmbat mooy ñun li ñu tumuranke daal nga dimbale ñu ngir yàlla dox euh, consulat daal ñu fexe ko am Argentine Sénégal loolu daal la ñu gën a tumuranke ndax sonn nañ lool ci légaliser ay kayit Brésil di dem ak a ñëw di fay di sonn daal bari nañ coono daal dimbale lañu ci loolu. waaw Kumba euh, nga xool la nombre de sénégalais yi fi nekk tey bu vote amee ñi nga xam da ngay fal ñi la war a jiite ñoo wala fal ñi la war a jiite tey ñu ne képp ku dugg Argentine bu vote amee yow bokkutoo ci mhm. mu mel na dafa am benn bedde bu ñuy def mhm. léegi loolu nan nga ko mën a jàngatee lan moo ci sa xalaat ak lan moo ci say say say doléance boo mënoon a jàkkaarloog le président de la république son excellence waaw maanaam loolu li ko waral eh, maanaam ñàkk a waxtaan rek la mais bu ñu waxtaanee président lépp dana saafaraw lépp dana faju ndax moom xam na lépp te fii lim bi fi nekk ci sénégalais kenn mënu laa wax nu mu toll waaw bari gi foo ko takk weesu na ko kon nag ñun doon nañ mbooloo moo xam ne man nañ lu ne wàllu politique ak lépp mën nañ cee jàpp ndax mbooloo fi nekk. waaw Kumba ñu ngi lay sant di la à travers Touba Argentine TV ñu bàyyi la waa Sénégal. Hmm. waa kay jërë ngeen jëf yéen waa Sénégal namm naa leen maa ngi nuyu sama famille sama xarit yi sama ñëpp daal ñëpp samay xarit lañ samay famille lañ jërëjëf. mais ñu gis nga muuroo drapeau bi xam naa patriotisme bi ngay ngay exprimer wala nu mu demee man damaa bëgg sama réew. fu ma man di ci àdduna bi damay présenté sama réew man dama ko bëgg. voilà euh, Pathé euh, da am benn nouvelle de taille xam naa yëg nga ko yëgoo ko via les les via via internet via YouTube via Touba Argentine TV ñu ngi yëg yëgle ne le président de la République son excellence monsieur Macky Sall dafa war a ñëw en Amérique latine bu ñëwee Amérique latine plus particulièrement mu ngi euh, ñëw Brésil ci loolu sénégalais yi nekk en Argentine am nañ benn doléance boo xam ne naam bu nekkee du fekk si war nañ ko mën a wax à travers Touba Argentine TV. ñu dégtal ko le président de la république son excellence. Euh, sëñ Pathé Diop lan moo doon sa doléance. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp nuyu waa Sénégal nuyu tamit mbokki Argentine mbokki Brésil mbokki képp ku nekk si biti rek. moo ñu nag président bi moom bu yegg si woon fii wala mu tegal ñu loo xam ne maanaam euh, dinañu doy parce que 96 laa dugg ci dëkk bi depuis lors que ñu ne fi kenn fi mos a ñëw découvrir tuuti muy Youssou Ndour te dafay jaaroon à passage rek. Macky Sall ñun amuñu lenn lu ñuy métti ci moom wala lu ñuy neex ci moom c'est un yàlla moom mooy jël ki ko neex mu teg ci kawam mais bu ñu amoon li ñu gënal fii la Sénégalais yi ëppee mu yónnee ñu ab benn consulat suñuy problème di gën a moyen parce que fii ñu ngi fiy dee lijjanti wuñu ko ñu ngi fi am ay problème lijjanti wuñ ko bon man tey su ma sañoon Brésil googu muy ñëw su fekkoon ne su ma ñëwee danaa ko mën a jege wax ko li ma métti wala li ma neex man danaa ko jege. xam naa ne di ko mën a jege doo ko mën a jege mooy nga dem Brésil fekk audience bi muy accordé la communauté sénégalaise tey à travers Touba Argentine TV muy benn benn chaîne internet boo xam ne via YouTube via Facebook mu ngi divulguer les informations tey boo ci waxee sa doléance yaakaar nañu le président de la République à travers son ambassade son consul dinañu ñu dégg say doléance dégtal ko le président République bindu ko ci mémorandum jébbal na gestu doomu sénégalais fépp fu mu nekk ci bon toog nañ moment boo xam ne ñun dañu soxla fii consulat waaw loolu rek moom métti ci Macky du leneen bu ñu amee consulat am ku ñu fi représenté koo xam ne bu nee dara ne këtt jënn mu takk cravate am wala moo xam mu sol sabadooram génn dox loolu ñëw toogaat wala ñu jël koo xam ne doy na leen mi ngi ci dëkk bi parce que ñu ne ci dëkk bi xam yoonu dëkk bi bari na man ci ancien yi la je suis la dixième personne soxla may place ak yooyu li ma soxla mooy Macky na gestu doomi argent doomi Sénégal yi nekk Argentine ñu ngi fiy dund lu neex ñu ngi fiy dund lu metti li ñuy dund lu metti nag moo ëpp li ñuy dund lu neex. waa mais tamit ci loolu ñuy seede que ni la direction des Sénégalais de l'extérieur joue un rôle extraordinaire le consule au Brésil también joue un rôle extraordinaire sur sur le bien de des Sénégalais résidents en Algérie naam lu matali lépp amul. moo tax am nay rëq-rëq léegi rëq-rëq yooyu mu ci bokk wut passeport wutum passeport yi ñu seetlu ne délégation saa bu ñëwee dafiy def benn benn durée benn durée bu restreint léegi euh, yan yan jàngat nga ci loolu. jàngat yi ma am ci yooyu bon d'accord ñoom suñ ñëwee li leen temps bi may gàtt na lool mais suñ amoon lu ñu gënal ñu toog ba lijjanti ñi nga xam ne ñi ngi dëkk ci province yi régler leen soog a dem mais mënoo ñëw ne da ngay da ngay def ay passeport def fi deux jours wala trois jours dem Argentine dañ fi bëgg a doxal lu bees loo xam ne ñun gouvernement ñu sonal waaye leneen sonal lu ñu fi ñun ak Argentin yi lépp jàmm lu ñuy dox ci ñoom day yomb ñaata sëf fii booy daal di dem ñu jox leen immédiatement sëf conduire un an nga fay passeport bi di dem te yow sa réew. pour nga am sa passeport nationalité mënta ne fu na da nga fa daw dugg wala nga dugg Brésil génn xam nga ñu def bu gars ñëwatee nañ fi jël benn temps bu diir bu mu doon temps bu gàtt. waaw loolu di doléance su Pathé Diop njóobeen bi mu ne ñu def fi doléance bu yàgg mën a mën a mën a mën a mën a saytu mën a mën a a solutionner mu na ko euh, à travers Touba namm sama soxna Mbène Touré moom yaay xale yi maa ngi moom ñaar fukki at ak ñeent bu dawul du daw. kon nag yéen maa ngi leen di ziar li ngeen di def rafet na yàlla na ko suñ borom yàlla na ko yàlla ak yonent bi ak bépp sëriñ bu ñu yaakaar rek yeggale lii ngeen di dox pour mu def travers monde ñu xam ci li ñuy dund ak lu ñu dund. waaw ci yeneen beneen ci sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk fii en Argentine sëñ bi ñu ngi lay nuyu. waaw ñu lay ziar euh, euh, tur bi ak sant bi ak euh, foo dëkk ci Sénégal. waaw Pape Sow lañ koy wax man maa ngi dëkk euh, parcelle. waaw parcelle from euh, Pape Sow from PA. waaw vraiment ñu lay laaj moom benn information de taille le président de la république son excellence monsieur Macky dafa war ñëw en Amérique latine plus particulièrement au Brésil ci benn forum boo xam ne monsieur Michel Temer Temer son excellence le président du Brésil moo ko invité. ci loolu le président de la république par une voix autorisée moo ñu dëgtal nañu dafa war a déglu sénégalais yi le 18. war am ak ñoom audience déglu communauté sénégalaise yi déglu seen i seen seeni seeni i seen i méttit déglu seen soxla wuti ay saafara comme ni mu amee habitude di ko def monsieur Sow lan nga ban mébét nga xam ne boo jàkkaarloog le président de la république euh, moom nga koy moom nga koy wax. waaw loolu dañ koy rafetlu vraiment ndax it euh, rafet na lool euh, sa gouvernement xam nga dëkk ñëw déplacé wu ñëw di la seet si dañ koy rafet lu lool waaye li ñu ci gën a neex mooy maanaam. bu ñëwee mu fexe comme Argentine amuñu fi consul man bu ma sañoon ndax fi ne nii pour nga lijjanti fi kayit il faut nga déplacé dem ba Brésil te daanaka li nekk Brésil ëppul euh, lu nekk Argentine kon te ñun sénégalais ci développement réewu Sénégal li ci ëpp boo def seet ñun suñu loxo da siy dugg ndax ñun lu ñu gën a neex mooy boo liggéey ba weer dee nga xool li nga xam ne moo war a fay courant e Sénégal li fa war a fay ndox li fa war a fay téléphone yëpp yaa ñafe yónnee ko sa famille ñu fay ko kon nag ñun dañoo war di nemmeeku bés bu ne waaw rafetlu nan ko nag wax dëgg yàlla rafetlu nan ko te it bugg buñ sañoon bu ñëwee ñu waxtaan ci fexe nu ñu defalee consul boo xam ne nii Sénégal euh, Argentine dina ko am waaw te loolu dinañ ko rafetlu te it en plus mu fexe ba waxtaan ak ambassadeur bi nga xam ne moo nekk Brésil parce que fii boo defee gars yu bëri amuñu carte consulat te loolu dafa am solo recensé wuñ leen waaw day it duñ fi am ay jafe-jafe yoo xam ne nii mënuñu koo wax tant que jàkkaarloo moom waaw vraiment rafetlu nañu lool lool lool ñëwum fii te it euh, di ko ñaanal di ñaanal gars yi fi nekk yëpp waaw. waaw monsieur sew mu mel ni dafa am beneen beneen beneen beneen doléance de taille boo xam ne ni tey élection day am Sénégal nga nekk ci net bi nekk à travers Touba Argentine TV di xool xew Sénégal mm-hmm. mu mel ni dañ ñoo beddi quoi un nombre important bu nekk euh, ci Argentine ci Amérique latine plus particulièrement en Argentine mel na dañ ñoo beddi nañu yéen daal di leen yóbbante xaalis bi rek Sénégal waaye bu desee lu dul falak folli toog leen déglu dañ comme mu ngi mel ne ñun beneen waaso lañ bokk bokkuñ ci duñ ay sénégalais waaw vraiment loolu nu mu lay def waaw loolu daf may naqari loolu ndax ñun ñëpp ay sénégalais lan te boo dee seet loolu si faute état bi la xam nga ndax fii bëri na ñoo xam ne nii bëgg nañ Macky Sall bu ñu déggee plan émergence xam nga li ma la day dem si ñoom it naka la ñuy fexee ba jàppale président de la république si liggéey boobu mu sumb waaw kon moom rafet na moom mu xalaat ne doomu sénégalais nekk rek war na la mën a recenser bu vote amee nga participer xam ne ndax ñun amuñu lu dul suñu carte amul ñun suñu carte bëgg nañ koo jàppale nag waaye balaa moo xam loolu moom na fexe xam ñun lan moo ñu naqari ak lan lan bëgg ak ban mëbët lan bëgg ci Sénégal waaw loolu la. waaw vraiment monsieur wax bi rafet na ñu ngi lay siyaar di à travers trois Argentine TV ñu yëpp wax dëgg yàlla di leen wax ne waaye xel naa nga sa suuf bu leen ñu fàtt si ñaan ñun duñu leen waaw ginnaaw bu ma nuyoo mbokk yëpp euh, ziar leen Eh, di nuyu waa Sénégal surtout sama dëkk Diourbel ki ma bokk bon président Macky Sall loolu mu def noonu loolu rafet na parce que comme boo amee say doom ñu nekk ci dëkk jaar na nga dem fa seeti leen mais man li ma am la ma ciy wax nag mooy xaw na yeex xaw naa yéex tuuti parce que fii li fi nekk ci sénégalais entre Brésil ak euh, Argentine ci latine bi laay wax sax bari na lool bari na yoo xam ne nii dañ koy soxla di ko ñax te mënuñu ko am muy lu jëm ci ay renouvellement passeport ak leneen ak leneen. at yi passé dañoo sentir ni kenn euh, gës kenn gestuwuñu quoi ñun ñu nekk ci Amérique latine bi kon nag buy ñëw ñun dañuy daal di lu ñëw bi di ko dalal bu ñëwee it bon li nga xam ne ñun mooy suñuy bëgg-bëgg mooy ñu jàppale nu bu baax bëgguñu mu ñëw rek comme aspect politique kese déedéet dañoo bëgg mu ñëw jàppale ñu xam ne ay doomam ñoo fi nekk lijjantil ñu ay ñuy soxla bu woote jotee ñu mën a woote comme ñëpp parce que sentir nañ ñun fii duñ woote baa boog bu ndee amul solo kon daanaka. te ay Sénégal lan ci réew ma lan bokk am na yoo xam ne nii war nañ cee gestu bu baax a baax ñëw bi nag rafet na liñ ciy ñaan mooy bu ñëwee li muy signé it na nekk loo xam ne nii Sénégal moo ci gagné njëriñu Sénégal lay nekk mais bu mu nekk affaire boo xam ne nii dañ koy def parce que damaa damaa seetlu ni suñu président yi parfois dañuy jël seen big ak seen kay rek dem ci tubaab yi signé ñu loo xam ne nii après 30 ans ci ginnaaw wala 40 ans ci ginnaaw suñ doom yi ñoo lu muy signé na nekk loo xam ne nii njëriñu Sénégal lay doon. ndaxte wax dëgg yàlla président Macky Sall bu fekkee ne day ñëw Brésil bëgg a gisaale communauté sénégalais yi nekk euh, ci Latin Amérique bi loolu du ñu def lu dul di ko rafet rafetlu ndaxte doole jën ndox bu suñu président ñëwee di ñu visite si franchement parler loolu moom dañ ciy sant yàlla bu baax. waaw mais ban doléance boo xam ni tey bu Alaañ Mbaye amoon opportunité toog ak le président de la République son excellence monsieur Macky benn salon nga war lan mooy suñuy mébét lan mooy suñuy méttit lan nga ko bëgg wax lan moo doon sa euh, sa doléance bi njëkk waaw li nga xamante ni bii nii euh, tey jii su ma jàkkaaroon ak président dinaa ko ko wax mooy li nga xam ne moom la ñëpp di jooy rek bon muy problème mu passeport yi nga xamante ni bii nii moom lañ am euh, bépp muudu muudu luy njàmbatam si àdduna rek mooy document passeport. parce que passeport nekk na loo xam ne soo ko amul doo mën a lijjanti dara ak fu mu mënti nekk doo mën a lijjanti dara même hôtel sax boo fa doon fanaan tey dañ lay laaj sa passeport. bon kon bu jeexee bon li ñuy ñaan mooy président bu di mun di yabal ay nit ñu ñëw di ñu defaral donte par six mois la comme que mënuñu am consul moo ñu gënal bu ñu mënee am consul consul nag boo nga xam ne day mën a nekk fii nii Argentine bon mooy li ñu gën a bëgg quoi bu ñu ko mënul am nag te mënuñu ko amit mu jàppale ñu li laay war a suul yi par six mois yu nekk ñu mën a am ku ñëw renouveler ñu passeport yi bon loolu moom nekk na li ñu gën a bëgg ko man la Fallou Thiam. may dëkk Dakar Guédiawaye. waaw. sëñ Fallou ñu am benn nouvelle bu une grande nouvelle mooy le président de la république dafa war a ñëw en Amérique latine plus particulièrement au Brésil tey nga nekk Sénégal nekk ci Amérique latine bi ñu ne la sa njiitu réew sa gardien de la constitution sa première institution de la nation dafa war a ñëw nemmeeku si la lan nga yëg. waaw loolu de di ci am mbégte bu baax a baax a baax a baax ndaxte bu ne président de la république du Sénégal Macky Sall war naa ñëw Amérique latine loolu dañ ciy kontaan bu baax baax képp kuy Sénégalais rek. def naa ne du man lu dul rafet lu loolu ndax yàlla def na fii ñu nekk sori na soriwaay boo xam ne nii tumburam tumburanke nañ fii yenn yi bu ñu demee nag ba lu toll ni président ñëw ne day ñëw Amérique latine ñëw pour nemmee ko ci ay ay doomu réewam duñ man lu dul di rafetlu loolu rawatina ñun ñi nga xam ne nag dañuy dund fii nekk fii ci Argentine ndax fii ñu nekk sori na soriwaay boo xam ne li yàlla xam doy ndax li borom xam-xam yi wax nee nañ euh, Amérique déggal nee nañ Argentine fi la àdduna bi kon fii sori na buñ demee nag ba fi ñëw dañ ci duñ mën lu dul ci mbég bu baax a baax a baax a baax a baax di ci di profité rek di profité rek di am lu ma ciy yokk li ma ciy yokk mooy ñi ngi bëgg a def ci réew mi benn temps bi ñu ngi fiy bëgg a yàgg am loo xam ne tamit ñu raf la ko fi yàgg nañ ko fee jooytu jooytu nañ ko guddi jooytu nañ ko bëccëg lu mel ni ambassade wala consulat jooytu nañ ko fi guddi côté yi nekk jooytu nañ ko fi yaakaar nañ ne buñ demee nag ba ne président fi ñëw li ñu yàgg a ay at Euh, mu ñu te rafet nañ jot ne xam naa ne dina ci jot ñu def la tout rek pour lu ñuy nemmeeku fii lu mel ni consulat wala ambassade ak yooyu daal soxla nañ ko fi daal yitte woon nañ ko fi ndaxte boobu léegi yenn mi ngi am yenn jéey yi mi ngi fiy am euh, yàgguñu fi nag mais am na lu ñu fekk ñetti doomu aadama bàyyeeku nañ fi wàcc nañ fi liggéey ci ñoo xam dañ leen a buum. te ba léegi ba ñuy topp seen i procédure tamit pour justice tamit mujjewul fenn yu bëri du mujje fenn te yooyu di mën naa tamit lu tax mu xaw a métti ñàkk ambassade la wala ñàkk consulat la yaakaar naa ne bu fi amoon yu bëree bëree bëri dina fi xaw ca du demee noonu quoi. waaw waaw waaw sëñ Fallou waaw mu ñu am un nombre extrême muy plus de 4000 wala 5000 wala jàpp 10 000 sénégalais yoo xam dañoo nekk en Amérique latine autour de Brésil Chili Équateur yaa xam fu ñu nekk. vote am ñu war a élire seen njiitu réew ñu ne duñu amuñu droit vote noonu laa ko mën a tuddee nan ngay ban ban doléance nga war a jox le président de la république nga war wax la président de la république mu jël ci ay saafara yoo xam ne c'est des solutions daar daar yu war a jël parce que dañoo pare pour remplir suñu droit de vote suñu droit citoyen mooy voter élire ak fal ak folli ci ñi nga xam ne ñoo ñu war a jiite ëllëg waaw ñun ay doomu réew mi lañ ay citoyen lañ ay fa lañ juddoo fa lañ màggee fa lañ yaroo li fa nit ñi am tamit am nañ ko fa am nañ fa carte d'identité am nañ fa passeport am nañ fa carte électeur yàlla def na waaye nag moo ñu xaw a tënk ba nga xam ne tey jii mënuñoo voté te tey jii kenn ku nekk ci ñu bu nu amul lu ñu gënal dëgg dëgg dëgg élection bu jotee sax jaral nañu ko ñu dagg billet dem ba Sénégal pour voté ji defaat demi tour jaral nañu loolu ndaxte dañ faa bokk nañuy faleeg nañuy follee war nañ cee bokk di ci dugal suñuy suñuy suñuy loxo di ci dugal suñuy kàddu ndaxte dañ cee bokk di ko di wax rek ne soxla nañ loolu war nañoo mën a def le tour ni Europe di ni Europe euh, ña nekk Italie exemple Espagne Euh, États-Unis ak feneen ak feneen ak feneen euh, loi ban am ba tax ñoom ñuy voté ñu nii am nañ droit boobu di ko ñaan rek lépp lu mën a def rek ba dimbali ñu timit ba dimbali ñu rek ba dimbali ñu rek loolu di jàppandi fii ñuy mën di voté rek euh, soxla nañ ko daal. waaw sëñ Fallou sant ak ngërëm ñeel na la Touba Argentine TV. waaw mu ngi lay sant di la gërëm di la wax nga nuyoo à travers Touba Argentine TV mbokki Sénégal. waaw di leen sant di leen sant di leen gërëm rek ndax ca Touba Argentine TV. bi mu fi ñëweeg léegi yàgg na yàggul waaye gis nañ liggéey bu mucc ayib bi muy def ci ci réew mi gis nañ ko di leen sant di leen gërëm bu baax. waaw mu yombalal ñu maanaam ci bu fexe jéem a yombal ñu si suñu nekkin ci dëkk bi mënu si dara daal maanaam pour passeport yeeg genre affaire yooyu carte d'identité yeeg yooyu bu fekkee mu mënoon la nekk tamit moo ñu gënal man bu ma doon wax bay wax moom si côté boobu laay wax ak moom tamit mu jéem a dox si pour Sénégal yi nekk fi yëpp kenn ku nekk am ay këyit waaw. waa dañuy wax alhamdulilah rek di sant yàlla di nuyu waa Sénégal d'abord euh, di nuyu suñu mbokk yi nga xam ne ñu ngi fii nii ci Amérique latine bi yëpp comme ni nga ko waxee muy président de la République war fi ñëw loolu tamit nekk na loo xam ne tamit ku nekk sañ nga bëgg nga sa sa président ñëw nemmeeku la xam ci lan nga nekk ak ci lan ngay dox xam sa lan mooy sa jafe-jafe mu saafara ko loolu ko sañoon di nga ko am. loolu tam dañ ciy kontaan rek di ko xaar daal mu ñëw ñu dala ko si jàmm. waaw mais tey bu ñu la waxoon euh, le président de la République recevoir la la waxal ban jafe-jafe xam ne urgence c'est c'est à résoudre daar daar léegi léegi yow tey bañ jafe nga koy tegal sur la table. waa li ma koy wax mooy li nga xam ne ñun sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk ci bitim réew ñëpp moom lañuy ñuy jooy rawatina waa Amérique latine bi muy ci côté passeport yi jeex yi ak lu mel ni carte d'identité yi nga xam ne euh, kenn ku ne sénégalais bu nekk war nga ko am. yooyu mel ni côté bi dafa xaw a rafle trop te bu ñu sañoon mu ñëw fi nemmeeku suñu jafe-jafe daal xam lan lan lañ bëgg ak lan lañ soxla jafe-jafe yi ñu am mu taxawal ñu ci loolu daal ñu ngi ko ciy xaar. mais problème bu passeport yi tamit mën nañu mën nañu rafetlu liggéeyu ambassade bi nga xam ne saa bu passeport yi manqué ñu envoyé délégation mu ñëw naa bu nekkee am na ay soox ay rëq-rëq loolu mën nañ ko ko concéder mais tey euh, nombre de sénégalais yi nekk fii nga xam ne mat nañu au plus ou moins 4000 sénégalais résidents en en Argentine ou bien. plus de dix mille sénégalais résident en Amérique latine tey ñu ne la benn sénégalais bu ñëw en Amérique latine bu élection bu la fekkee doo voté lan la lay def. waaw ñun moom bu ñu sañoon élection yi ñëw dañoo war a voté parce que ñu jege ak ñu sori ñëpp ay doomu Sénégal lañ bu ñu sañoon sa réew sañ nga fa fal di fa folli mais bu fekkee ne ñi nekk Sénégal ñooy fal ak di folli te ñi boo xoolee ñi nekk ci euh, ci bitim réew diaspora bi ñu si nekk kenn xamul nu mu toll kon yoon la kenn ku nekk ñu utal la carte d'identité nga def li nga xam ne mooy sa devoir muy élection ñëw nga tànn sa président bi la neex nga voteel ko loolu bu ñu sañoon tamit dañ koy am.